asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen siyaar di leen baalu àq ñu ñëwateeg yéen ci feneen foo xamante ni muy fu gën a yéemeeti fu gën a neexati tey jii nag dañoo ñëw fii ci eh, Touba Njaareem fekk ci fi nga xam ne mooy Baye Mbow Baye Mbow moom yaakaar naa ni duñu leen ko présenté xam ngeen ko bu baax muy koo xamante ni yaakaar naa ni lépp loo xam ne mooy seen gàllankoor seen wàllu yaram yàgg na koo saafara te yàgg na leen a génne ci yëpp xat-xat yu mënti doon moom nag yaakaar naa war ngeen koo miin bu baax a baax ndax ci bépp rajo boo xamante ni nekk na fii ci diggante Bawal rek ak fi nga xamante ni moo ci diggante Touba wala Njaarim wala Dakar ak fu mën a doon ba Louga sax da ngeen ko fay dégg xam na comme liñ naan tunga ne du teew ñu nataal xam naa su ma waxee ak moom rek ngeen dégg kàddoom di ngeen ko miin bu baax dama koy daal di nuyu dalal ko rek ngeen daal di koy déglu asalaamaaleykum Serigne Baye Mbow maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar di kontaan nag ci dalal bi nga xam ne moom laa lay dalal. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa sant yàlla di jënd ci yonent bi sant sëñ Basiru sama sëriñ. ah Serigne Baye wax dëgg yàlla tey ji moom. yaakaar ni ma la fekkee moom neex na ma lool ndax dama daan ñëwee nu ne mais tey moom moo ma dàqal tey jii nag ma ñëw du ma guddal nag di yàgg di la yàggal loolu di jël sa temps mais damay ñëw ak yow ci ni ma daan ñëw ak yow rek mu mel nii daan nga yëngu ci lu baree baree bari ci wàllu ñaan yi nga xam ne danga koy ñaan muy ay ñaan yu kémtaan waaye dafa mel ni nag tey la wàlla gën a aay ndax tout le rek damay saa yu ma yaakaare ne Baye Mbow fii la féete rek mu génn feneen fu a neex foofu wala fu foofu te gën a wér foofu Baye Mbow loolu moom noo ko kiyee noonu xam nga ñaan ay buntu la rek ay buntu la rek yàlla mooy may yàlla mooy may doomu aadama lu ko neex yàlla suñu borom moo may xam-xam boo xam ne bii xam-xam bi daanaka génn na Sénégal dem na Europe dem na fu ne ñaan goo xam ne gii damay ñaan koo xam ne maanaam su ma la gisee su la gisut ak foo man nekk yite boo mën a am su ma xamee sa tur mën naa faju ñaar téeméer laay seete ñaar téeméer su ma la ko seetalee ba pare wax la li nekk ci yow naa la xamal li nekk yow lan moo koy dindi ak lan nga bëgg loo bëgg loo bëgg lu nekk su ma xamee loolu ba neexee sama borom ci biir ñaar téeméer bi naa la ko leeralal naa la saafara loole ci kàttanu yàlla. waaw sëñ bi man ba tey looloo ma xaw a yéem ci ñu bare bari dañ ma koy faral di wax dañu naan Baye Mbow li ñu yéem ci moom mooy da ngay nekk fu sori nga toog euh, mu toog fi mu toog nga nekk fi nga nekk mu daal lay saafaral sa jàngoro fajal la sa yitte ak ci lu mënti doon loolu nag moom a xaw a jaaxal loolu moom noo koy defee noonu ay sunguf la yooyu yónnee nit wala ay reen wala lan. noo du ma joxe sunguf du ma joxe reen du ma joxe téere loolu yëpp duma ko def man daal damay ñaan ci alxuraan kese ci jëmi xaadim rasul képp ci lay ñaan du ma joxe téere du ma joxe sunguf waaye loola mën te dal ak loo man am ak feebar bu mu mën a doon ak lu mën a nekk ci yow ak loo mën a soxla soo joxee ñaari téeméer ma xool sa yaram soo ko waree am dinaa la ko leeral soo ko warta am la ko leeral soo ko mënee am te sarax ko dinaa la ko leeral nangam mooy saraxam boo ma ko joxee incha allahu taala fa nga toog bala ngaa am weer ak fukki fan ak juróom loola dina saafaroo incha allahu taala ak lu man doon nag ak loo bëgg nag dina ma saafaroo incha allah du ma joxe dara du ma joxe reen du ma joxe sunguf benn butéel ndox laa la koy daay jox joxe te yaa koy foofu tëj ko ma defal la ci ñaan gi soo ko sangoo ni ma lay waxee soo paree bala nga am weer fukki fan ak juróom li nga bëgg lépp di am ah Serigne Ba loolu moom loolu moom yaakaar na leer na loolu moom leer na lool sax waaye nag ba tey dafa am benn jàngoro boo xam ne dama koy faral di dégg ci ñu bari ne danga nga koy saafaral bu baax a baax muy wàllum rab rab bi nga day faral di téye ñi ba di leen yàqal ci lu bari ci seen wàllu néegu sëy ak seen liggéey yow loolu nan nga koy saafaraa. rab moom ni ma koy saafaraa fii laa ubbi biteel sama biir néeg fi ma toog fii laa ubbi biteel sama biir néeg jël sa tur dugal ci biir li nekk sa yaram yëpp bii biir biteel bi dugg ma tëj ko gas ko suul dootoo ko gis waaw ba tey ba tey tamit euh, loolu tamit wér na ndax euh, yaakaar naa ne moom gis nañ ko gisati ko moom moom daakaar naa du du gan ci ñun waaye itam damaa gis ngay def lu am am solo jamono ji comme ni naan daanaka liggéey sax nit ñi bëggatuñ ko wala dajale dara wala denc dara ndax nga xam ne dañ ñu koy yàqal muy wàllum sàcc dafa mel ni dama laa gis nga mën ci bu baax a baax a baax waaw sàcc moom biteelu weer ngay wut soo wutee biteelu weer juróomi junni laa koy defare biteelu weer ngay wut da nga koy tijji teg sa ko armoire woo ma téléphone soo ma woowee téléphone a la ci ñaan gi boo xëyee da boo xëyee ñaan gi pare danga may woo boo paree bu ñaan gi paree boo ma wooyee tey fekk bidéel bi pare na nga gas ko suul fekk ñett téeméer at saj na dugg waaw loolu moom wér na moom yaakaar naa ne loolu moom lu am am solo ndax jamono ji kenn ku ci nekk yaa ngi liggéey di dajale waaye loolu liggéey lu nekk rek sama gaayoo ñëw ne ko kon ko am dina baax ci yow loolu ba tey sama mbokk nga xam ne dañuy faral di tukki di toppatoo ay muy jafe ba mujj ñuy jaaxle di ci gaal yeeg ñooñu ñooñu nan nga leen di dimbalee bañ mën a mu yomb te duñu am ay jafe ak foo mën a nekk rek ci àdduna soo jëlee sama numéro bii soo ma wooyee téléphone la nga bëgg ci réew ma su ma la tegee sarax boo ko tegoo sarax bi ma lay teg boo ma boo ko tegee boo ma ko joxee la nga bëgg ci réew ma bala nga am 45 jours da nga sa bët man nag li samay sikki mooy sarax yi may laaj boo ma avancé ma defal la andi woo sarax ba la nga bëgg bëggan doo ko am. koo dégg mu ne bàyyi boobu daal jox na mas lëf dese ma loo xam ne jublu la ci jublu la bëgg bu doxee du gis dara. Ah, kon daal dafa ñuy faral di ñëw nga laaj leen ñu ñëw di la di la dooleeg yooyu di nax dem boo ma avancé daal moom ni ko ci dara waaye li nga bëgg nga wax ma ko man nangam moo koy saafara nga génne ko teg ci sama loxo bala nga am 45 jour loola moom bu dee jàngoro bu dee këyit bu dee lu man doon suñu borom na ah, am na solo waaye ba tey nag ma leen di fàttali ni yéen a ngi déglu bu ki nga xamante ni mooy Serigne Baye Mbaw muy taaliba Serigne Basiir bu mag di koo xamante ni yaakaar na lu alxuraan ak Serigne Touba ko ci lay nekk te di leen di saafaral seen mbir ngeen di ko yëg bu baax a baax a baax waaye nag ba tey Baye Mbaw ma ah, la laaj leen itam nga xam ne tey sonal nañu bari muy góor ñi nga xamante ni yenn saa yi dafa leen di am lu leen di gàllankoor ba seen wàllum néegu sëy maanaam duñ mën dara ci seen wàllu bopp wala soxna yi nga xam dafa mu leen teeb duñ mën a am doom ak seen kër wala sëy bi day naqari lool ba kenn du xam lu mu doon yow loolu noo koy noo koy la jox sunguf du ma la jox reen du ma la jox téere sa tur daal laa bëgg xam ak sa tur borom kër su dee war ngaa am doom sa borom kër gàllankoor danaa ko xam su dee war sa borom kër war naa am doom ko jigéen gi ko gàllankoor danaa ko xam kenn kum ci man doon danaa ko xam la cay war muy ay sarax naa la ko teg soo ko tegoo bala ngaa am ñetti weer bu dee jigéen joo xam ne musta am doom balaa am ñetti weer dana ëmb bu dee jigéen joo xam ne daa am doom ba bee mu taxaw dematul balaa am ñetti weer encore moom dana am bu dee ci góor dinaa ko ni balaa am ñetti weer nekkoon moom set wicc bu dee feebar la bu dee rab la bu dee cat la bu dee seytaan la bu dee jinne ko def dinaa ko ni ci kàttanu yàlla waaw Serigne Mbaye moom ba ba tey bala may continuer dama leen di jox li nga xam ne mooy ay numéro de téléphone am bu ko defee ngeen daal di koy bàyyi xel bu baax da ngay jël yow mi nga xam ne yaa may déglu da ngay jël numéro Tigo muy 76 800 872 07 33 wala nga def 77 429 72 45 Tigo bi di 76 800 872 07 33 ta WhatsApp la sax moom moo daaxati wala nga jël li nga xam ne mooy orange bi di 472 472 429 72 45 ngeen baal ma mooy li nga xam ne mooy numéro orange waaye ba tey nag Serigne Baye Mbow dañuy continuer ci lu lu loo xam ne duñ ci guddal sax muy lu am solo ba tey itam muy ndaw ñi nga xam ne dañoo jug ci góorgóorlu lu ñu lu ñu góorgóorlu ba dajale ko rek daanaka mu ne pang dem duñ xam fu mu jaar ñi naan loxo yu bënn la wala ñu naan dafa am lu leen di yàqal nan nga mën a dimbalee ndaw bi nga xam ne day liggéey ba a dajale dara am dara yor ay waajuram nan nga ko mën a dimbalee noon a dimbalee daal mooy mu ma xam mu mu mu jox ma turam joxe ñaar téeméer ma seet lan mooy gàllankooram ma ñaan sama borom gàllankoor boobee yàlla sama borom dindi ko ci nu gaaw a gaaw a gaaw teg koy sarax man daal sama problème mooy teg lay sarax sarax yi ma lay teg soo ko génnee li nga bëgg di nga ko am balaa ko am bu dee a dajale di nga ko def loo mën ko am incha allahu taala yow euh, Serigne Baye Mbow comme ni ko yenn euh, ñaankat yi di faral di defee di nga di nga da ngay faral di génn di am fooy nekk yenn saa yi wala tout le temps rek fi ñu la fekk fi la ñu lay fekk wala actuellement nag li ci ëpp mooy maa ngi Touba mhm. maa ngi Touba du ma génn sama kër bëriwut Louga laa fiy dem te li may dem sax Louga bëriwut maa ngi Touba sama kër maa ngi Touba alom ga maa ngi sama kër duma ko génn waaye ba tey tam ma fàttali leen ba tey Baye Mbow mu ngi dëkk fii ci Touba Alom gi yaakaar naa ne boo fi bëggee ñëw ba tey da ngay jël numéro téléphone yooyu ma la joxoon rek boo ñëwee ba ci arrêt Alom gi fi taxawee boo woowee Serigne Baye Mbow dina la booleeg ndaw loo xam ne moo lay jël si ba ci këram nga ñëw mu defal la lépp li nga xam moom nga bëgg man nag xaw ki nga xam moo lax sawut ak moom rek kooko ma jaaxal waaye képp ko ci bitim réew lu nekk ci yow wala lu naqari na ko saafara ba mu deñ ndax yaakaar ñi nga xam ne ñu koy dégg xam ko bu baax yaakaar na yàgg naa jëflante ñoom fu nekk ñuy gis waaye Serigne Baye Mbow fi nga xam ne fa koy tëjee muy li nga xamante ni mooy gàllankooru nit ñëpp jamono ji muy cat làmmiñ ak bët ak yi nga xam ne mooy liggéey yi gàllankoor doomu aadama yooyu nan nga koy saafara ci nit amul lu ma bàyyi ci doomu aadama amul lu may bàyyi ci doomu aadama naa lu koy dal kenn dong daal la mënta faj ku rep ku rep mbaa koo xam ne dama laa teg sarax nga nga jox mas lëf la nga des nga téye ko nangu woo ma ko jox. ki nga ne ki nga xam ay rab da koy bili mbaane yenn saa kooku day deñ ñëppay deñ bu fekkee li ma koy teg tegoon na ko léppay deñ moom daal li ma ma li problème mooy ma teg la sarax nga bañ ma koo jox mbaa nga jox ma lii ma lee fas yéene maa nax sa bopp ngay nax du deñ loolaa mooy sama sikk sama ñaan jarul ñëw sama ñaan jarul ñëw mhm. foo ma nekk ci àdduna mën naa laa ñaanal uh-huh. jarul ñëw wari baa fi euh, orange mën a baa fi mhm. li ma lay teg soo ko tegoo sama numéro ngi nii yaa ngi moom yaa ngi gis sama jëm li ma lay soo ko tegoo loo bëgg ci man da ko am muy boo bëggee nekk loo bëgg a nekk da ko nekk incha allahu taala xanaa kay nga bañ a defante ma yu nax mm. soo ma fas yéene nax sa bopp ngay nax parce que lu ma la ko mm. doo dem fenn mm-hmm. koo dégg mën a bàyyi nangam nangam mm-hmm. lan digale defut mm-hmm. ki nga xam ne kii nag li ñu diggee ko boppam la war jamono ji ñu ëpp ci ëpp ay warkat lañ man nag ku tegoog man ci dëgg li nga bëgg di nga ci man nag maa nax loo nga bëgg doo ko am bu looy sama sikk sarax laay laaj laajuma kenn dërëm mhm. fayekuwuma mhm. laajuma kenn dërëm mhm. ku gëm yàlla ci alxuraan daal ku gëm yàlla ba alxuraan daal mën naa laa ñaanal ku gëm ay sungu fa keneen ak pitaaw dama am na ko bu baax daf lay seetal wax la li nga xamante ni moo nekk ci yow wax la ni mu koy saafaraata ay mbiram tam dafa yomb macha allah moom bokku ñoo ñoo xam ne dañuy laaj ay weexal sax di la sonal moom mën naa ni lépp daf koy def yàlla tax ci kaw bu la saafara la si jàngoo pare rek loolu moom seen diggante la yaakaar naa ni bi ngeen jëflantee di nga kontaan ba mooy Serigne Baye Mbow moom lañ doon waxal nii mooy ko ama am solo macha allah moom moom yaakaar naa ni koo jëflante moom ku nekk rek di nga ko xam bu baax a baax numéro téléphone nag ba tey dama leen koy fàttali muy 872 07 33 mooy li nga xamante ni mooy numéro tigoom bi te am na whatsapp ipitam mooy ki nga euh, numéro bi nga xamante ni tamit mooy tigo bi nag mooy whatsapp bi orange bi tam boo ko woowee tout temps di ko jot 24 heures sur 24 moom numéro day dox tout temps foo ko mënti woo heure bu mënti doon na recevoir wax la jaar lay saafaraal li nga xam ne mooy sa jàngoro nga wax li nga naqari mu daal la koy saafaraal ni da ngay bëree wala ngay yëngu li nga xamante ni mooy si métier wala ak lépp looy mënti def lu mu mënti doon muy sport lu mu mënti doon ñëwal rek incha allah rabbi mu daal lay defal li nga bëgg kon nag mbokk yi moo ngi noonu moo noonu moo ngi noonu moom fi ngeen ma di nekk ci àdduna bi rek jokkoo leen ak moom mu daal di leen di saafaraal seen jàngoro kon nag ma leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah man ak yéen duñ mës a tàqalikoo bu soobee yàlla